i baaxoo di teew teewlu xibaaru Bambouck dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru uh, bés bi élève bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci concours uh, général bi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci réew mi mu jëm ci wàllum uh, arab nag liñ nemmeeku mooy doomu Koungheul di tudd Abdourahmane Ba moom nag moo daal di wuutu doomu Koungheul bi nga xam ne moo ko jëloon daaw di Khadijatou Diop nekk doom ci ki nga xam ne mooy oustaz Pape Diop nekk fële ca eh, jàmm gën moom nag di fàttali ne Abdourahmane Ba mu ngi classe première waaye tamit eh, ci école élémentaire bu nekk fële ca Sobel jëm-jëm ci la daal di def eh, la daal doon jàngee 2013 ba 2014 gannaaw loolu nag ci la ñëw école franco arabe bu Koungheul fa la amee li nga xam ne mooy CFM gannaaw loolu tamit. ci la daal di eh, dem foofu Dakar ba daal di bokk ci concours boobu yàlla daf mu daal di eh, jël li nga xam ne mooy eh, ndam li cérémonie bi nga xam ne nag fas leneen fas yéene joxe li nga xam ne ñooy prix yi ñu ngi ko àpp niki alxamis fukki fan ak benn ci weeru ut bii ñu jëm fële ca théâtre national Daniel Sorano no grand théâtre nga xam ne Doudou Ndiaye Coumba Rose lañ ko tuddee loolu nag dina am ci teewaay ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall maire bu Koungheul uh, di Aline Badara li nekk responsable politique fii tamit uh, daal nay woo ni ki démb ab daje bu mag ci buntu permanence su APR fii ci uh, Koungheul ngir woo askan bi ñu daal di jàppale waaye tamit teewal ñi nga xam ne ñooy candidat yi nga xam ne daal dinañ leen tabb ci liste Benno Bokk Yaakaar bi loolu nag ñu mën cee lim teewaayu ñaari candidat yi ci honorable député Fanta Sall ak ki nga xam ne mooy Mohamed Dieng ñu mën cee lim tamit waaye ñi nga xam ne mooy yenn ci mairie département bi ak parti allié yi ak maire sortant yi ak ñi nga xam ne ñooy euh, parti euh, liste ñu demee woon liste parallèle ci jongante yi nga xam ne euh, daal dinañ koy génn. moom nag euh, aline Badara Ly daal dinay wax ne dina def kémt lay kàttanam ngir fexe ba liste euh, président Macky Sall bi daal di am ndam ci jongante yi ar niki fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ndaje boobu nag daal dinay tax moom maire bi tamit mu daal di ñëwaat ci lu yaatu liggéey yi nga xam ne daal na koy euh, tàmbali fii ci gox bi lu ci mel ne marché bi nga xam ne fas yéene na ko defaraat ak place de l'indépendance bi nga xam ne tamit daal dinay tàmbali liggéey bi ak euh, li nga xam ne mooy ñaari voies yi nekk ci biir marché bi mu nar ko euh, defaraat ak euh, li nga xam ne mooy bunt stade bi lépp fas yéene na ci sànni ay daal daal na ci sànni ay kàddu fas yéene ko wéyal ngir fexe ba Koungheul gën a mun a bees ba ku fi ñëw rek daal di koy sopp li ci mel ne député euh, maam Diarra Fam ak euh, Déthié Fall ni ki ak ñi nga xam ne ñooy sympathisant nekk ci coalition Yewwi Askan bi ni ki tey lañ war a euh, jàkkaarloo juge bi ci seen procès gannaaw ba nga xamee ne daal doon nañ leen teg loxo ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weer juin bi ñu génn gannaaw bañ leen tere def manifestation ñu daal doon génn liñ mën a nemmeeku nag mooy ñoom ñu ngi jamono ji ci palais de justice ci eh, salle 4 bi nga xam ne fa la audience bi di amee waaye leneen li ñu ci mën a wax rek mooy leader yi nekk ci coalition yeewee askan bi yëpp daal dinañ fay teew ngir daal di leen dooleel ki ci mel ne Habib Sy eh, Cheikh Tidiane Dièye Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ci mel ne Aïda Mbodj eh, ñu ngi teew ci jot salle boobu ngir dooleel leen waaye tamit apporter li nga xam ne mooy seen soutien. ci wàllu tàggat yaram la ñuy àddu ak Casa Sport nga xam ne mooy équipe bu nekk fële ca Ziguinchor ni ki démb eh, dimanche eh, lañu dem football final coupe du Sénégal nag moom nag mu daal di koy jël ci kanamu étoile Lusitana daal di koy dóor ñett bal ci eh, dara. ñoom nag daal dinañ am lu toll ci fanweeri euh, million ci loxo yi ministre de sports nag ci lañ leen ko daal di joxe gannaaw ba nga xamee ne euh, daal dinañ gagné euh, final bi waaye étoile lusitana nga xam ne moom lañ daal di gagné daal dinañ koy jox moom tamit ñaar vingt vingt millions yoo xam ne moom tamit daal dinañ ko koy jox ndax moom lañ daal di gagné.